jërë ngeen jëf ci teewlu bi mbokk internet yu 5M TV Sénégal association watu suñu pas-pas moom daal dinay xamle ci ab communiqué ni oustaz Modou Fall kon duñu rek nangooti mu amal ay conférence wala gàmmu ci turu xadra bi dogal boobe kon nag mi ngi jukk ginnaaw oustaz Modou Fall moom bi mu tontoo di wax ni Bercy la ñu doon amal ca kër Aziz Ndiaye di wax ni itam moo tey ginnaaw la nga xam ni rek def nañu ko ci bi ñu ñaawloo taxawaay bi mu def ci euh, bésu gàmmu googee tax na kon Serigne Lamine euh, Sall moom àddu ci sax mbir mi foofee ca ci Tiwaawan ndax fa la xewee ca kër nag Aziz Ndiaye mu ni nag fi mu nekk nii ñoom taxaw nañu temb kon ni ànduñu ca na mu doxalee tax na ñoom chef religieux bu famille Serigne Abbas Sall ca Louga di xamle itam di woo autorité religieuse yi ci rawatina nag oustaz Modou Fall la mu def ñu wax ci ndax gàmmu gox na mu ko defee kon ànduñu ci ñoom association wattu suñu pas-pas loolee la ñu xamle loolu itam lu ñu fësal nag di woo kilifa yi rawatina xalif bi di Serigne Babacar Sy Mansour ak yeneen kilifa yi nga xam ne ñee nga ca dëkk bu sell ba. sëriñ fàllu borom njëriñu askan bi di borom xam-xam bu mag bu kenn dootul naatable xam-xamam ci wàllu seet listixaar lasraar ak ñaan sëriñ fàllu borom njëriñu askan bi amu ci morom yow mi rab jàpp wala cat sonal la sa wërsëg tëju loo yaakaar mu tas wala nga bëgg a tukki wala nga tukki bëgg am ay kayit ngir ñibbisi wala nga bëgg soxna wala nga bëgg borom kër dawal gaaw jokkoo sëriñ fàllu borom njëriñu askan bi mu faj sa aajo ci lu gaaw a gaaw seet ak listixaar bu wóor wan say mbir ba lépp leer ci yow loolu moom ñëpp maase nañ ñi amu ci morom ngir jokkoo moom wooteel ci numéro téléphone bi 75 630 71 97 75 630 71 97 ak Serigne fallu borom njëriñu askan bi njëriñu kese la